ناجي ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان ناجي ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان ناجي ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان ناجي ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما بوك جولي دي فيتيو ييب بوك طالبي نونغي ييغلو كي بير جمعه اك كو تيد كي في ني تي ديغال ديغال تك noo ngi nuyu mbooloo mi fi teew mépp di leen jotal ay kàddu yu gàtt yu bàyyi ko ci sëriñ bi Cheikh Modou Mountakha moo nu fi yebal si mu ànd ak sëriñ Cheikh Mbacke sëriñ Cheikh Ahmadul Khadim Mbacke doomam mu wax nañ ko teewal fii jotaay bu tedd bii santal ko mbooloo mi gërëm leen mu wax ni mi ngi nuyu waa muxaddamatul xidma ci njiitul sëriñ Afiya Buso ci xalaat bu sell bii nga xam ni amal nañ ko ngir dundal weeru koor bi nga xam ni ñépp xam nañ fi ko sëriñ Tuubaa tegoon ci wormaal ak màggal ñu di ko dundal dundin wu sell ci ñaari yëf yi nga xam ni bu amee liñ bëgg ci weeru koor bi danañ ko am te moo di xam ne nuy woore ak am lu ndoge bu ngoon jotee kon nee na mi ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm yéen ak mboolem ñi aji ci jumaa ji waaye di nuyu ñi nga xam ni ñoo fi toogal Cheikh Mouhamadoul Moustapha ibnu Cheikh Massamba moom mi nga xam ne mooy borom jotaay bi moom lañ ko jagleel mu yebal fi waa këram sëriñ Abdou Rassakh ak ñi mu àndal ñëpp moom it di ko xam ni lii ñuy def ci biti muy berndeel nit ñi berndeel berndeel nit ñi ngir bëgg ñëpp am lañ doge kenn jiituwu ko ca ba am ci cër bi mu ci am te loolu bu amee dañuy wax ni laaxar wa ndax

moom la taqale fii ci jataay bi moom sëñ Maam Mor mi doon def waxtaan wi la sëriñ bi waxoon biig ci kumte gi rek loolu la taqale ci waxtaanam lépp ba mu gën a leer nañ ndax sëriñ bi ku ne xam ne amul jotub toog di wax wax ju yàgg waaye bu waxee la mu war a wax rek ñu leeral ko la mu ca bëgg a wax lépp mu leeral ko kon moom itam sëriñ baa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal waaye di ñaanal mboolem ñi nga xam ñoo nar a topp ci ginnaawam ci bis yi di ñëw ngir ame jataay bii di ci xam de koor di ci xam de diine di ci xam de taalube ñu ngi leen ci sant baax di leen ñaanal mu àgg ci jàmm mu fekk ko ci jàmm te jàmm rek xew ci barkeb Serigne Touba mu wëlbati ko nag nee na di soññ mboolem taalube yi daayira yi ak def ko defkati lu baax yépp luñ man ñu jàpp ko ci lii nga xam ni moom la waa Moukhaddamatoul Khidma taxawal te mooy iftaar yi mooy ndogu yi ndax mbir la moo xam ne mii yonent bi soññe na ko Sëriñ Tuubaa soññe na ko ñu góor góorgóorlu ci baax lu ci waay man nga xam ne sa bopp nga defal di ñaan nag ci barkeb Sëriñ Tuubaa mi nga xam ni moom la fi nekkal te nañ ko waxee woon ci woote bi weesu lépp lum mu ñaan ci moom suñu borom dana ko may nee na mi ngi ñaan suñu borom may nu ñu woor woor koorub jàmm amuk wér am kàttan am jàmm ami xéewal ba mën ko def ni ko suñu borom bëgge te am ci ngërëmal Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom lañ koy def ci dëkkam nee na it am na ci xel mu dal lool ndax Tuubaa gi ñu koy defee ak réew mi ñu koy defee te Sëriñ Tuubaa dëkk ci rawatina Tuubaa gi ñu koy defee rawatina fii ñu defee waxtaan wi rawatina fii ñu defee bernde yi nee na jàpp na ni képp ku fi teew lépp loo sàkku ci suñu borom sàkk ko ci Serigne tubaa suñu borom dana ko defal nam la gën a ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñu teewe ko na gën te kenn bañ manqué mi ngi ñaanal it njabootu Serigne Touba gi suñ Touba dafa suñu borom dafa leen jàmm liñ yéene ci liggéeyal Serigne tubaa ci weer wi ñoom njabootu Serigne Touba gi góor ak jigéen kilifa diine yéene ko liggéeyal lislaam ci weer wi ci ñëpp suñu suñu borom dafa leen ci lu koy seen jot kàddu yooyu de suñ boo xam nañ ko jottali ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان ناجي ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان ناجي ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان ناجد ربي بسيري رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان